L'air L'Airly TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. الله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان الحمد لله الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين نجي سانت برمبي سبحانه وتعالى ديكو نيان mu jéggal ñu suñuy njuum te jéggal ñu الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم di wax ne ñoo ngi sant borom bi taala wata tabaarak di ko gërëm ci xéewalu lislaam bi mu ñu may di ko gërëm ci xéewalu wérgi yaram di ko gërëm ci xéewalu jàmm ak salaam bi mu ñu defal yàlla na sax waaye ñu ngi koy gërëmit ci xéewal yi mu ñu defal sëmbërtal ko ci sunu biir te xam nañ ni ay xéewalam suñu ko doon wàññi munuñ koo jeexal wa in tauddu nicmatallahi la tuhsuha dégg ngeen comme ni ko alhaaji Sarr waxee ñoo ngi nii jëm Betente di ñaan yàlla yoonu jàmm àgg ci jàmm waaye fekk waa Betente ci jàmm دار البر والإرشاد نك ليلا باخو موي جوك دي دعوة دي ووتي تي يونو يالا تاي بونيو ديمي بتنتي ان شاء الله فنان فوفو سوبا نيوغي ديلوسي تي سورو تي سونو خالي بو خامني موكال تيري بروم بي تعالى وتبارك di wax ni rek jullit war nay sant yàlla jamono bu ne xam ngeen ni ndox mi ñu nekk ci gaal gi ñu nekk tegu ci aw yoon kenn mu ñu musal fii kudul yàlla laa malakun muqarrab wala nabiyun mursal du malaaka mu jege yàlla ba mel ni jibril munuñoo musal fii bu ñu yàlla naraloon leneen du malaka mu jege yàlla ci lenn waye yàlla mom moy musal jam du yonent yonent yàlla muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam li muy rëy rëy bu fitna fekkon fi munu ci dara du ko yek sax ndax fatuna ma nga ca bàmmeelam kon nak kenen ko fi wo munu la jirign motax borom bi li ñu wax ni wa idha rakibu fil fulk دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون borom bi nee na doomu aadama yi day ñoom ñu ñàkk jom lañ ñu ñàkk xel lañ ñu ñàkk xalaat lañ xoola gaal gi tey bu ñu ko takkaloon gàllaaj lan la gàllaaj mënal gaal bu ñu jëloon dàll wu dagg takku ko ci mënu ci dara kon nee na yéen ñiy dugg gaal su ngeen duggee gaal yàlla rek ngeen di yaakaar woo yàlla ne yàlla rek mooy borom bi yàlla mën yàlla sañ su ko defee ngeen dem ba wàcc wàcc ci commencé sëriñ diw moo baax sëriñ diw ay waaja ku mucc sëriñ diw wala musal ceeb yi sëriñ diw a ko niinal wax a wax bokkaale goo xam ni <coughs> xam nañ ni maatay lañ ci jublu akak ak mbon waye loolu borom bi neena ku ñak jom mo koy def kon julit war nay sor boromam ci sant ko sant bu wéré wér mom la borom bi wax ni qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahima hanifa wa ma kana min almushrikin qul inna salati wa nusuki ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين برام بي سورة الأنعام موي يو جامو يالا بي نانغول واي وخال ني بروم جبل مومو جوبل يال نانيو يالا جوبل يال نانيو يالا المستقيم صراط المستقيم بوبو نك مبوكي موي توب يالا توب يونتبي صلى الله عليه وسلم topp ko bañ a bokkaaleeg yàlla waaye bañ a njuuyoo ak yonent bi suñu waxee bokkaaleeg yàlla mooy def la yàlla tere jublu ci yaakaar walla bëgg-bëgg wala sañ-sañ am-am waaye buñ la nee yonent bi nga moytu li mu deful nga moytu la mu tere nga moytu la mu ne lii baaxul te loole moom mooy bidaa soo ko moytoo rek yaa ngi ci diinan qiyaman mooy diina ju xoc xocc tegu ci siraatal mustaqim diina jooju nag ci la yàlla yónni yonant yëpp tàmbalee ci yonent yàlla nuux ñëw ba ci yonent yàlla ibrahim ñëw ba ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñoom ñoo bokk benn woote te ci tawhid la ñu woote indi wuñu daray folklore diina ji lépp ci jaamu yàlla lañ ko teg ci yàlla nee na yonentam nee na amul benn yonent bu sañ a changé li yàlla santaane amul benn nitu yàlla bu baax bu ko sañ a changé xanaa bu xamul kon nag diinan qiyaman diina ju jub jooju nga xamante ni moom mooy diina borom bi ñu ne boobu moom mooy ban mu ne millata ibrahim mooy yoonu sunu maam ibrahim alayhi salaam moo tax yonent bi mu ñëwee yàlla da ko wax na jël diinay ibrahim ndax yonent yàlla ibrahim moom mooy imaamu tawhid <coughs> mooy imaamul muwahidin ndax moom yàlla da koo yónni bu ñëw woote ci kennal yàlla woote ci wéetal yàlla tey nag ngay dégg ñu naan kennal sëriñ diw loolu baatu bokkaale bu day waar la ndax mbindeef kenn du ko kennal la tax kenn du ko kennal biir ba mu jóge juddu am na keneen ku fa jóge juddu am na papa am na yaay am na maam am na leneen kon mbindeef la day soxla day soxla woo day soxlaal nit ñi nit ñi dañu koy soxlaal kon millata ibrahim nga xamante ne mooy ibrahim di yoonu tawhid mu ne xanifan jub xocc wuteeg lépp lu dëng wa ma mushrikin yonent ibrahim bokulwon woon ci bokkaalekat yi kon mbokk yi nañu góorgóorlu te xam bokale bokkaale du jëriñ bokale lëndëm la day lor bokale day yakal nit bokkaale day toroxal nit bokkaale day suufeel nit bokkaale day lëndëmal bàmmeel bokkaale day tax nit ki du dem àjjana waaye bokkaale day xañ nit ki yërmande yàlla subhanahu wa taala bi gën a doy waar nag bokkaale na yàq jëf yàlla wax na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko la in ashrakta la yaxbatanna amaluk yow muhammad sallallahu alayka wa sallam li ngay baax baax soo bokkaalee sa jëf day yàqu yàlla wax na yonent yëpp walaw ashraku la habita anhum maa kaanu yaamaluun yàlla nee na yonent yi ma yónni bu ñu àndoon bokkaale seeni jëf sippeeku seeni jëf yàqu kon war nañoo xam ni amul solo fii ñu nekk ci lëggu géej gii ci diggu ndox mi kenn rek moo ñu fi mën a jëriñ muy allahul waahidul qahhaar mooy borom bi nga xamante ni mooy kenn ki not lépp moom dong moom moo yeyoo ñu jaamu ko bañ koo bokkaale moo tax mu ne wa maa kaana min al mushrikin yonent yàlla ibrahim musul bokkaale bokkul ci bokkaale kat yi yow miy jaamu yàlla nag góorgóorlul ba julli yàlla nga war a jullil qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaatiya lillahi rabbil alamin góorgóorlul julli yàllaa ko moom kula ko digal na ko digal ngir yàlla waaye bul bàyyi julli ngir ndigalal keneen du benn sëriñ bu am kattan ba war laa tere julli du benn waliyu bu baax ba war laa tere julli <coughs> bépp waliyu yàlla buñ la ni waliyu la nga bëgg a ànd moom nga ni taalibem nga mu tere la julli kooku jubut baaxut ragalul yàlla te saay-saay la képp ku la teree julli tere na la li gën ci kaw suuf képp ku la teree jaamu yàlla na nga xam ni waliyu seytaane la nekkul waliyu yàlla ndax julli yàlla moom moo ñu ko digal woor yàlla ñu ko digal kon nit munul nekk nitu yàlla teralu yàlla santaane yow mu ni nitu yàlla nga topp nitu yàlla boobu teralalu yàlla santaane kon kooku nekkut nitu yàlla nitu seytaane la yow mi koy toppit seytaane nga kon jaamu yàlla yàlla ko moom julli yàlla la ñu koy defal la la koy wan soo génnee àdduna balaa ñu laa suul dañu lay jullee kon nag julli yàllaa ko moom qul inna salaati julli gi may julli lillahi rabbil alamin kon bul nangu kenn tere la ko yow mi xale bu góor bu ko nangu yow mi xale bu jigéen bu ko nangu bul yaakaar kenn bul topp kenn bul jël kenn lenn lu dul li yàlla santaane mu ne wa nusuki booy rendi rendil ngir yàlla bul rendi mukk ne barke sëriñ bi bul tëral xar mi ne barke sëriñ diw boo ko defee médd nga lekk mooy wanu sukki <coughs> la ngay def yëgal ni yàlla ko moom ndax tuur bakkan war a jëriñoo bakkan boobu yàlla rek ko mën a santaane ñu def ko moo tax boo tiimee xar mi tuddoo yàlla wala gatiim tiim bëy bi tuddoo yàlla wala gatiim tiim li ngay rendi tuddoo yàlla tudd fa sëriñ diw nekkatul lu dagan médd lay nekk lan moo tax ndax jël bakkan yóbbu ko ci lu dagan yàlla rek moo ko mën a santaane ñu war koo def moo wonu sukki rendi na nekk ngir yàlla mu mu ni wa mahyaaya sa dund gi yow doomu aadama dund ko ngir yàlla sa bakkan kenn yoru ko yàlla ko yore képp ku la ni danaa la alak maa ngi lay fàttali li sama sëriñ ba waxoon muy cheikh moustapha ku la ni la alak waaw nga ci alku mooy دا كل شيء هالك الا وجهه كن كولن دنا لا الك لا لا نابو واي ييغل ني دوند بي يالا موكو موم اور بي ني دوند يالا كو ديسيدي اور بي ني دي يالا كو ديسيدي فان لا ني دي يالا كو ديسيدي كان لا ني دي يالا كو ديسيدي تعالى وتبارك كون ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي نينا لول لله رب العالمين نانكو ديلو يالا سبحانه وتعالى ني وبذلك تي لوله امرت لدغليف ما ني وما انا من وانا اول المسلمين من دال بوكنا تي نجال بينو جولي ني كون بوكي دار البر والارشاد ووتول لودول تي جامو يالا ووتول لودول كنال يالا ووتول لودول يونتي بي صلى الله عليه وسلم wootewul lu dul jàngale njàngalam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ngi ciy woo bépp jullit boo xam ni gëm nga yàlla ngay seetlu li ñuy wax di ko dégloo xel bañ koo dégloo xol moytu seytaane yi ndax dañuy yàq dañuy yàqalaate te seytaane yi ni ñu amee ci jinne yi noonu la amee ci nit ñi kon ñu ngi woo ñëpp ci jaamu yàlla والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيوغي نيانا نيب يالا دفل نيو جام في سنغال يو سوتي في بركة دف في جام با إلكسيون في جام ñu mëna jëm ci leneen ñoo ngi ñaan yàlla mu tànnal ñu ko baax ci ñun baax ci société bi jazakumullahu khayran salaamu alaykum